asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen internetu Sénégal TV Serigne Codou Seye borom xalima gi surtout maam Cheikh Anta Gaawaan bi nga xam ni ci xam-xam bu rëy bi ak wilaaya gi ak cër bi nga xam ni moom la ko yàlla defal yow bi nga xam ni am ngay jafe-jafe bëgg a xollu bëgg a istixaarlu ah seetal ki nga xam ni mooy Serigne Codou Seye borom xalima gi yow mi nga xam ni da ngay entreprise wala société nga yaakaar ni dana dem wala du dem demal nga seeti sëriñ kotu say borom xel gi ca mbuur yow mi nga xam ni feebar dal la feebar boobee nga jàpp ni ci jóg wala doo ci jóg demal nga seeti sëriñ kotu say borom xel ni nga xam ni léppam génnul alxuraan léppam génnul tur yàlla sëriñ kotu say borom xel gi. mu ngi dëkk mbuur jàmm gën gannaaw ray en face académica ah bul tay de jël sa numéro téléphone nga woo ko 77 691 06 57 dañ nag ba dajatoo daj bay dajale ñàkk loo ko dajal waaye yow mi nga xam ni bëgg nga ko la dëggal wa ah sëriñ koddu say borom xalima gi surtout maam Cheikh Anta Gaawaan bii nga xam ni xam-xam ak barki ak baatin ah ko sëñ tuwa rek la yem seeti ko gaaw woo ko ci numéro bii 77 691 06 57 daj nag ba dajatoo daj ba dajale ñàkk loo ko dojeel Serigne Kodou Seye borom xale bi ku ko ñam ah da nga xam ni ñam nga koo xam ni dootoo ko bàyyi ba abadan